loo jàpp ne dafa àgg ak moom mën na fa àgg ak moom foo jàpp ne dafa àgg moom mën na fa àgg moom te actuellement nii may wax ak yéen dem ba àgg ci ne amatoo droit gëm projet Pastef loolu sax léegi dañ ko tere ci réew mi soo taxawee wane ni projet Pastef laa gëm kaso ba nga jëm soo taxawee wax ni Ousmane Sonko moo ma doy kaso ba nga jëm soo tax taxawee wax ni Ousmane Sonko moo ma doy takk bracelet loolu waru ci woon agsi te gis nga agsi na ci tey am na ñoo xam ne boo leen ni woon est-ce que dina àgg ba ci àndanteeg programme Pastef wala parti Pastef wala Ousmane sonk xanaa lu mën a xew nag dañu dem mukk ba di ko bañ dañu naan non non foofu moom dañu fa àgg te tey dem nañ ba àgg ci même dañuy bañ sax ku faj président Ousmane sonk même médecin amatoo droit yow sa clinique amatoo droit léegi recevoir ci président Ousmane Sonko.